لي يا عجا وانزلا بالتواون تواون فيها اليمن للمطيامن خليل يا عجا وانزلا aousubillah min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim wasalatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam mbokk jullit yi mbokk yu tedd yi xew-xew bu rëy amatina fan la xewee fii ci Pikine tali bu bees ci kër Cherif Mouhamadul Habib at Tidjani ci mawlidu nabi al Mustafa al Adnani gàmmu maamam gu tedd googu nga xamante ni nii saa su ngi koy def fii di ko fàttali maamam gu tedd googu ci ndigalu doomam bu baax ji Chérif Abdoul Moutalib At-Tidjani ak Chérif Sidi Ali Haydar At-Tidjani ak Chérif Cheikh Oumar At-Tidjani ak képp koo xamante ni njabootu Cheikh Ahmad Tidiane Chérif nga ñu ngi ciy woo nag tabaarakallahu muqaddamu Cheikhuna Tidiane yi nekk ci goxu Sénégal gi yëpp waaye yi nekk ci goxu Afrique yëpp waaye yi nekk ci goxu diaspora bi moo xam ku suñu carte invitation mooy suñu kàddu yi ñu leen ko yëgal ñu ko fas yéene ko def le 11 novembre incha allahu 2023 fii ci Pikine Tali bu bees ñu ngi leen koy yëgal di leen ko fàttali di ñaan suñu borom yàlla nañ ci yàlla yëgal jàmm ak salaam ci barke yonent bi lépp luñ ci bëgg ak lépp luñ ci namm yàlla yàlla defal ñu ko defal ko lu ëpp suñu njortu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh lii tiwaawan fiiha al-yumnu lil-mutayaabi xaliila yaa ujaa wanzila bi tiwaawani